bàyyi Cheikh Ibrahima borom nit ñi ji fii Moodu moo la lay jiib di la wàcc biir réew mi dara du ko di ma di nga ma bëggee di nga ma yëgee di nga ma gisee di nga ma téye loolu laa la bëggee Papa Diop ajal fàjjal sa kay sa yaay sa yaay ba muy su koy mot ya xam ndaw maa ngi lay bégg as ndaw borom du ko maam baayu jooja ndaw baayu nay bu ndaw as ay waay as xadi ndaw nga bokkal ndey ak baay koo bokkal di bëgg nga ko taalibi sëñ Babacar bi Bakar Gama aram la ko ma jaam bañ benn bëgg ma benn xar yàlla moom joor ali bañu ci sambay naan joppandi sambay naan juwaale samba naan yaw li nga nu defal as ndaw abu as li mu nu defal ay lom nu defal as ndaw li mu nu defal mu aase lom nu defal mu nu defal mu aase lom nu defal as ndaw dépôt boisson ci corosement bi bala ngaa ngi ci station bi xoolal droit fa nekk asa ko fi indi boisson bi boo jabatee naanal boo amee njàkk rek naanal boo amee dëppum sikki e naanal boisson yëpp nu tegal day faj réeni rëtërul geer xaxas jigis ku nu yow doo ñoom du yàgg ba ngay ñëw moo aas dew yow li nga nu defal waay wax leen aas li ko bokkal dimbali nga ko waaye maam ko bokkal sagal nga ko bokk ndeyam kurada xakkan mi nga bëgg ne ko ci sa xol bi kurada xakkan maam jaay kurada xakkan maam jaay kurada xakkan maam jaay kurada xakkan émission bi ki ma ko tuddee waa du ngeen ma laa buur a daa xakkat umu saw dooma laa jéem a ko tuddee umu domal koo ko tuddee moo dubal koo ko tuddee man njaay yaayi mu xam ne bokk ndeyam buur ba man moo dubal maa ko dëkk ba mu ne dara du ko jindi katiw kiiw katiw katiw yaa ma ne katiw raw raw katiw kiiw dugg dugg njëg jamak jamak ji kes ganaar nga ximaar ñàkk def ñàkk a looloo raw Serigne Jara ko saree ni bàyyi day doon taxaar ba dina ba ma jiwal maay jiwal mi jiwal déedéet jala yow. jiwal maay jiwal mi jiwal. waay jiwal waay maay jiwal mi jiwal déedéet jala yow. jiwal maay jiwal mi jiwal surtout Togola. xoolal ab juddu ci la ah ah. Babacar ngay way de kaltoom si sëñ bay mooy sa baay soxna Ayda mooy sa yaay kaltoom si man li ma la bëggee ak ni nga ma leen yëg ni nga ma def noonu laa la def kaltoom doomi sëriñ nga jëtt yaawan yow doo ñoom du yàgg ba ngay ñoom doo laama lay yu tax sëriñu Tima sama waaj yaa bëgg sama jabar yaa ko jàppale Tima Tima taalibe sëñ Babacar bi laay woy Tima loo am sëñ Babacar nga ko yéene sëriñ Babacar Sy Malick dimaa loo xam yéene nga ko waa kër sëriñ Babacar Sy dimaa yaa bëgg sa sëriñ mu maase ak bëgg la muy kat kaltoom si dimaa nga bëgg fëri bëgg moodu bool dimaa xam nga yërëm sa ndey bu doon ñu xabaar ke du la yërëm sa yaay war naa fekke lii dimaa ku la diggal lii sa ndey ja dem nga toog risqué moo la diggal lii Adema ngi yëngu muy xalaa ma ni de dëgg sa këj moom masha allah yaa xajaa ngoy lan nga yëg ci Modou Bool waaw Adja Omo mhm. xanaa tubaarkàlla masha allah euh, lu mu mën doon rek na mokk wallaay te moom tubaarkàlla ci Tiwaawan la sànq nag mu wax ci ku baax muy mhm. Adja jàlloo Kor Diop si. Mm-hmm. di jigéenu Cheikh Yaba Cheikh Yaba di sama càmmiñ. yàlla boole ñu maa ngi moom tubaarkàlla macha allah. ma dugg nga dugg tam mu kantoom si. tubaarkàlla muy njëkkeel Faat Kunta bu Mouhamed Ñang bu Alaaj Tijaan Ñang donc kon ñaar ñi nga tudd ñëpp. tubaarkàlla sama ay nit yi nit lañu. kon tubaarkàlla macha allah du Bool bu taxawee fii. def fi li mu fi def ànd xale bu ndaw bi. ku gis xale bi xam ne yaa woy dina tubaarkàlla mm-hmm. te li muy def neex na yaa raxas sargal jigéen daal. non neex na. xam naa ne boo moytul daal tey dara du doy. dañ ko bàyyi waaye yàq de sa la tey. ah man de boo bëggee dégg say veera may ah, sa mbubb mu rafet man daal say veera. alaaji Alassane Mbaye rek. ah macha allah Alassane fi mu génn ak yow riche na. def say daal mu def ay cristal ni Alassane Mbaye daal nag na fi yàgg. maa ne cuub nag kor sëñ Salgal Tappe. ah waaw baax na moo defanteeg yow lu baax baax na xam nga nag jongomaa neex a solo. Alex Colby ren ah dama dekkaliwaat. dama laa jaawale ak ma rek sama rakk rek. bii moom mooy bi nga xam ne ne macha allah England bi la. Mhm. waaw ren d'Angleterre waaw macha allah waaw. moo tax ma defee nii rek <laughs> xam nga rek man moom damay bëgg di génn rek samay façon ah, bu loolu weesoo Modou Bool ñu naan la Modou Bool Modou Bool ji fan la jóge ma gis da nga ñëw ànd ak bool lan lan lan moo waral Modou Bool ji. muy wallaay TFM lañ daje woon. Ah, waaw waaw eh, sama waa ji. ba pare. Hmm, nga wàcce fa mhm. dëgg la. am na lu hmm. ah, wér la lu wér la waaye nekk sa ginnaaw la. Mhm. lii sama tey fu ma jëm ñu dem. ñu dem yaakaar naa ne tey foo dugg ci télé yeeg téléphone yeeg yooyu bëgg ci toog. ndeysaan xale yi ah, waaw. seen jikko. dëgg la ah waaw. aar yaakaar naa ku yàkkam di dem doo fekk. déedéet. da ngay toog gëm yàlla. Mhm. toog xaar yàlla nga xam ne yàlla dëggul ji. dëgg la. cëpp cëpp nag. moo gën yuréet. moo gën yuréet. dégg naa kon nu ma koy def noonu la def. dégg naa ne xool bu doon gisee jëmm ni am yoon. dëgg la. ndeysaan. moom dama leen di ñaanal yàlla ñoom di bëgg yàlla nañu ko yàlla def. amiin waay lu ma mën ñoo mën ñoom ñoo mën sëñ bu daal. ñoo ma jàpp parce que tey bu ma doon wax aw ma keneen ku topp sama ginnaaw dara du nekk. billaay ndeysaan kon booli ñoom la. Mm-hmm. sabari ñoom la. rythme mm-hmm. bi ñoom la. tâche mm-hmm. yi ñoom la. wax ñoom la ndax ki la téye nag moo la gën a ki la baax. aywa ki la jàpp daan woo. boo geesoo. na nga ko. nee ko yow. dëgg la gaal yaa ngi waaw waaw. ay. bool tey jii. waaw waaw. nee ñi koy fooyee dañoo xam lan mooy bool. ñu bàyyi suñu bool yi ñu ko saboon ne bàyyi ko ñun ñii ci lan amee soxna ci lan yàlla jox ko am. wallaay ci lan lañ yàlla terale ci la ñuy dem fu ne ci la nit ñi bëggee. ndeysaan ci la ñuy faj suñuy soxla. wallaay kon ñi mënul bool di ko saboon nañu toog. wallaay mi. billaay ndeysaan billaay dëgg la papa coon nee na ku mënul bul yàq géew jëf cëkk ko mën boo ko mënul bul yàq géew dëgg neexul boo bëggee mu def ci sa ndab boo bëggul mu def aha yëbbante yàlla wóor ah. lu wér la jox ko seen am jom dëgg la ñooñu tamit dëgg la waay mooy àdduna te looy def tamit la waaw dëgg la de waaw lu lay toppandoo rek lu gën lu mm-hmm. ma toog dikkal dikkal ma ammatoo sarxaloo xaj na feen waaw bone jula xam umu na caasoog mën a taas ak fontaan bi wax ak gaaruwaale bi ci réew mi sax yem gaaruwaale amul saas wax ju bon amul saas jigéen ñi Sénégal yi ngay sargal ñu toog nag moom ak say bëgg seen i dëkk jigéen jigéen jigéen góor gu fi baax jigéen ñi sa yaay añ kay jigéen gu fi baax jigéen mooy sa yaay a kay jigéen ju fi baax góor mooy sa baay eh, jigéen ñee ko moom ñooy sargal koy way yaa jàllo sama député bu bi borom kër Matar naag soxna jaaraay sa yaay yaa du lu yow du yàgg ba nga ñëw juddu ni nga juddoo ni nga jëf ni nga jëfe dindi la nga defoon man jaalaay sa yaay jalla jeeri laay way yaa e jallo do bojo bojo do fakk man do wuy do asalu bi nga bëgg sa bopp bëgg sa yaay téye sa bopp lii laa la nawe du nu yow doo ñoom du yàgg ba nga ñëw ajaa jàlla lu ma lay wax ay yow nga wane ko way ko yaa ko man. yéen yaa jàll bi ma way ko bi ngeen bi la. Modou Bol ni way ko. way ko wane ko way ko de. yéen tey ma yëgal ma mu neex de maa wala. yéen way ko way ko wane ko way ko yaa ko man. ay way ko way ko wane ko way ko yaa ko man. yéen way ko way ko wane ko way ko yaa ko man. tey ma yëgal ma mu neex maa wala yëgal. yéen ko way ko way ko wane ko way ko yaa ko man. tey ma yëgal ma mu neex de maa wala. xoolal ba leen tëkkale muy mais sa dégg-dégg ca ngeen ngiy siyee nga boole mu xibaar yee eh, booba jeeg bana te jaloo wëccal mu dem xonki bët bari karaw mën a yéeg ba mel ni golo bu tag golo réew mi bëgg sax moo nu bol waxal seeri fari seeri atabay moo nu bol waxal wax yàlla ni kun jël kun teg ca di kun yóotu asamaan. jëndu dee te sàkkuwul ndimbal. bàyyi leen ko xel. ah Macky Sall ubbi na kasa yi ñëpp a ngay ñibbi. eh bàyyi leen ko xel. ah Macky Sall ubbi na kasa yi ñëpp ñibbi. eh Pastef famille la Pastef famille amee jabar ba am ca doom jëlal famille boo ca amee jabar ba am ca dug jëlal famila di jabar pase famila boo ca amee jabar ba am ca dug jëlal famila pase famila boo ca amee jabar ba am ci ab doom famila ba xam nga ni yàlla ni kun jël kun teeg ta di kun kuli waaye yottu asamaan jël toob teeg ta saakuwul ndimbal bàyyi leen ko xel Macky Sall tijji na kaso yi ñëpp ngay ñibbi yow bàyyi leen sa ci kaso yi ak ña fa nekk ak am na lobaan yi ci réew député yi ci réew nit ñu baax ñi ci réew sëriñ ci réew nee leen nana ubbi gone yi du ñibbi ngir mars leen jëm dañuy bëggal yaay di bëggal doom di bëggal géej gi di bëggal sët yi di bëggal gone yi biir mars la nu jóg ñëpp a ngay bëgge ay waay ñëw leen nu sargal jigéen ñi dalee sargal jigéen ñi ubi est-ce que man nga taasu ankay est-ce que man nga taasu ankay man na taasu kay mu ne man nga taas ankay man na taasu kay koy ya dugg ci sama gàtt koy nga taasu ndax koy mën nga taasu mën na taasu ma waxat wax waxal yolo réew mi bëgg sax Modou Bol waxal séeri bëri séeri atabay Modou Bol waxal wax bu mu saw bu ma nee boo dee jula ñett dem Fuuta fa la jula yane boo dee jula demal bekkees fa la wala fi yane loo may tontu yow yaa may tontu Fuuta Fuutaan no weeli Bappalel no weeli Kaneere no weeli ah, min komi ɓiɗɗo pullo an ka bilo pullo armi holluma teddungal fulɓe fulɓe fof ko gooto ceerno samasa ar okkam duwaw ka ganɗo allah mo bisni jooɗoɗa tottuma lootoɗa Andil leta andil leta ma nekk legar utaana nani Modou Bol nani jille andil leta jille Modou Bol nani jille kam ti waawoon kam ti waawoon Modou Bol nani wop ca wop ca ca wop ca ca wop eh go jali chéri habibi neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum lu tax nga jóg nga ba na waykat yi ndaw yi ci réew mi yaay seen directeur ku bañ a ku nangul yëpp yaay seen dara baba waya daga faa leeg maa wa joor daal di ceg la mbay ca bay mbay yal bi ngi maa fay ngaay joor gëyee samaam moom la ni jooñ nga béegunu la mbay sabaay Sumulay sa baay Maysaay sa baay allah sa baay éy Moodu Bool mooy sa baay Lamp Fall sa baay xoolal tukki dafa xew muy tukki waaye bi mu tekkee du tey ca ku mu bokkal dimbali na ko laaj ma sa nijaay laaj yaa ngi def lu baax di yónnee sa nijaay téléphone di yónnee xaalisu gàmmu di yónnee xaalisu korite ak tabaski ladda Bambe ngay sa baay ku mu bokkal dimbali sama jarbaan yaa ñàkk ki ñaan yaa lu baax yaa xam lu baax ladde du bon ndax yaa yëmbonul koy way maaliku ma joon fara lamb fara lamb damee may duumi giwal ma taasu ko taasu ko koy fii dëgër naa ma ko sakkal man ba mu neex ma wax ko ñaari ma ku ba bu duggee cinéma ay ba dem taxul amaana musique ba la diiku yaa dolli ci xam mi karaw jël boobu yeew ko si sikkim nit ki la gën nit nit nit nit nga sa xol wallu du du man du ñi fi ne sa yaay liggéey lii ne affaire bi lay jëla ma toj ko ma toj ko wax ko wax ko yam ma kal la ma xool ko xool ko yam ndax ma dawal dawal yam am ma tël tëlal yam am ma dóor dóoral yam eh man du ma la yërëm ba mu neex ca dara du ko dindi eh lu waay wax am moo du bon na ca dellu lu waay wax am na ca dellu bu dee lu bon na ca dellu um saw lii ku ñu neexul danga dee bokkul ba nga bëgg a bokk kan boole wala sa fii di lu waay waxoon ne ca dellu muudu bool dikk na. ay lu waay waxoon ne ca dellu muudu bool dikk na. xam nga lu ma la bëgg. déglu leen. déglooti leen. Oumy Sow la mbaa jënd réew mi xanaa neex. déglu leen. déglooti leen. Oumy Sow la mbaa jënd réew mi xanaa neex. Eh! école boo dem am na directeur animateur yi ci réew mi yaay seen directeur. ko baña ku nangu yaay seen dër mu yëpp sa musóor ku la ko defa ah. waaye nag ki ma solal sama aawu buuru këram moo ma solal moo ma waajal ba ma ñëw jox ma ma ñëw ni ma Moodu boo solal demantele bay yàlla la yàlla yii te la fal la cat yaayu sëñ Fallou yaayu Mouhamed yaayu Alaaji Amina Mbengue sama yaay yàlla yàlla guddal sa fan daal di ceg la mbaay daal di mel jooju antamali gànna mar yaa baax waaye fari bi tey nag yaayi baay seen yaayi ndey xat lal yu seer la mooy tëddal jëndal ma kilim yu sedd may nelaw te dara dama dérangé sama jabar jee baax waaye nag cëy na koy cun sama xarit sama jigéen borom kër Cheikh Awa Balla nit ku baax ku mën a def lu baax soo ne gilaay jigéenu Modou Boor gilaay yàlla ko yàlla xare àjjana ak amal lu baax te bëgg lu baax te di ko Njaay taalibe sëñ Fallou du ma la waaya Nogay Njaay du nu doo ñoom sëñ Fallou la fal da ngay fal Nogay Njaay jëlal waaye sama yaay jaw sama yaay Fatou yaay Kora Samb yaayu toora ak a baax sama yaay jooju bi may wàcc yoon këram laa wàcc waaye nag du ma fëtte Aminata Njaay yaayu assurance yaayu alaaj yaayu am di ja séeri ba ñaaki fay Aminata Njaay dundal sa dund gi am na njariñ ey ami kolle yaa ma may jabari abu benn Maguette Mbaye yaa ma ko may i mbaay sa baay no koy géey sa yaay daawee mar joojaat damaali gaa na ma jigéen bi rapport ba samba saan ak sàmbe du na yow doo du yàgg ba ngay ñoom Serigne Modou Thiam doga fara lamb ak maaxar fara lamb anta maali gaa na ma jigéen biram biram biram biram ba samba saan ak sàmbe ne góor jële jële yaa yaay giiwal du mi giiwal jooja Thiam mu alaaji mbaar caam maa jooja la nuy jooj ci noppeegunu waaye mbaar caam la nu dénk ndey faatu ndey bu yaayam tey dee na ñang rekk ko jur waaye i baay baayam na maamam am nga gan umu saw am nga gan umu am nga gan. waaw am nga kañam. umu saw am nga gan. am nga kañam. commissaire yàqu Tiwaawan yaa ngi def Tiwaawan lu baax di bëgg ñu baax sama gaañ yaa ngi monté bëgg ñëpp yaatal ñëpp bëgg Modou Boll waaye préfet yaay sunu préfet yow la nu ndax préfet def kan lu baax nga nit ku baax nga mën a def lu baax bëgg ñi baax ànd ak ñi baax yow préfet yow leen préfet rek yow préfet mu di awoon eh, yow préfet yow leen préfet rek ci ndimul ma la eh wuy xalaa ma ndiir ba jo e sal salaato fii dëgër na boo salaatoo nan loola mbere kon <laughs> nga am naa gani lan. am nga gan baax ba jamonoy baax gani law be la ñu baax gannaayu man gani lan laa am. Ah, gani géwél waaw ah, waa gani géwél bi tey lu mu indaale Moodu loo inda Moodu loo inda Cheikh Bakke mu jóg kàlla wu ko kàlla Moussa Magane ci Moussa Magane ci Jilaan Modou Bor Ousseynou juuf sama rak Marème sunu rakk jàlla nay jooy caat Ousseynou séeri ndey siini waaye Marème mu ndaw sama jarbaata nga ca kër ga baax lool waaye dama am doom joo xam ne nag xale yi naan di jaay mu ni leen da ngeen bàyyi di ndax léegi muy maam Xadi Diouf sama doom la waaye léegi di jaay Moodu bool la ndax defante alima mbaan ma nga ca kër ga di def lu baax ramatulaay sama téer sama rakk ji du na doo ñoom du yàgg ba ngay ñoom acca topp leen ma ngi moo doo boor ne koy bëgg a dem topp leen ma ngi walla ajoof moo doo boor fooy bëgg a dem topp leen ma li fi ñu yawa na nooy damaa ko yaa ngi dégg ummi yaa war a yaa war dagg ko duggul ko maa ki koy waxal bokkul ak ñoom yemul ñoom sañ yëf la sañse sa yëf la mandu sa yëf la goro sa yëf la jeeñ sa yëf la am ngor sa yëf la eh umu saw daraam du ma bett ndax jëfi ndayam dafa mat umu saw daraam du ma bett ndax jëfi ndayam dafa mat eh ku am sa xoole ku am sa nopp déglul ku am sa xoole ku am sa nopp déglul sal so fii dëgër na dëgër na këj. këj kay ndax ngooy caali bu téyee ma téyee. ma jaaxal day dëgër këj. macha neex na bi judd bi dabu la. waaye Modou Bool lii lan lii la yaa xam ko laaj lii lan la mbokku téléspectateur yi. xam nga sànq rek la ñu woote tey xam nga sànq mu ngi nuyu maa waa kër maa joojo yi. waaw ndeysaan waa kër mbaar caam yi. Mhm. ma ciy nuyu aji na koy sama rak jabari mbaar caam maa moom suñ ñaar ndey yee bokk ndey kon xam nga ni géwél yëpp benn lañ tubaarkàlla macha allah moodu nag boo ko xoolee sax di ko déglu di nga xam ne géwél yi ñoom noonu la ñuy defee dëgg la maanaam mu ngi wane jigéen ñenn ci kër ga tey góorgóorlu waaw waaye mu ngi wane préfet bay góor góorgóorlu waaye mu ngi wane sax takk der ya nga xam ne mm-hmm. ñu nga fa tey góor góorgóorlu ah, te ñun kàll macha allah. Mm. li ñuy dimbali rek mooy ñi nga xamante dañ ñoo féete kaw dëgg la maanaam ñu wàcce seen bopp gis nga Modou mm. lu feeñ ci ka lu lu nekk ci xool rek mm-hmm. xool ko ci kanam te lii nga def ku ko dégg xam ne tubaarkàlla mm-hmm. juboo nga ak say mbokk te loolu moo am solo doomi mm-hmm. Tiwaawan nag mm-hmm. tubaarkàlla ñu day ni doon géwél ñun ñu bokk dëkk Tiwaawan ah, boo dee sama rakk tey taaj ko fii tubaarkàlla mu doon lu sedd saxool nga teg ko fi te Moodu ñëpp soxla ko tubaarkàlla macha allah ah mu damay wax ne rek waaw mu fi gëj nag yendu fi fanaan yendu fi fanaan fi bu mu fi gëj tubaarkàlla fii la yendu fii la fanaan te nee naa ko da ñëw ëttu ndaanaan yi day ñëw incha allahu rabbi waaw waaw yi bu ngoy caali barki démb la daje euh, dalal alaaji garmi du bay garmi bu TFM di magam ñu bokk benn meen macha allah nga gerle garmi fu ne garmi yi gerle la fu ne tale maa mbay jooju muy ku baax garmi di nitu valeur mu émission ak moom lu àddina yëpp apprécié hmm. booy caali ëttu ndaanaan yàlla na ci yàlla amiin yi yàkka yàlla lépp yow la rek waaw waaw yaa ma indi fii te fakkastaloo ma tubaakal la nee naa la tey daal hmm. yow laa tuddee fi nii waa dëggal lii lii kat benn xaas bi ma tuddee ko Maimouna Ndour Faye xam nga bu fekkoon tey uh-huh. mu indi ma fii ba pare xanaa xamoo ñun géwél mag dañ na mag du yàlla uh-huh. mais yàgg naa moom boo bu ma doon wax tey mu di ma dagg bu ko defee ñetti yoon def ko ñeenti yoon géwél def délégation dem ci moom waaye defuma lool de indiw ma fii bu nuppi di ma fakkasal indiw ma ba nuppi di ma dagg di ma coupé te jamono ji ñu toll nii tembe ki la intéressé nga ñor ko ak ki la wul ñoroo ko doomu aadama yi dañ koo xam doomu aadama da lay bëgg te tele dafa sew da ngay toog ci tele rek di seetaan tele nga bokk ak nit émission dama ko koy dama naan ko mën ak yow toujours dañuy tax ñi nekk ci tele yi di defaraat seen toogaay mm-hmm. maak sama rakk ji xiiroowuñu da ngay gis ku ci toog jël parole ba delloo baat bi rek ñii neexoowuñu moom loolu dalu ko indi ma fi ba bi dafa fakkasal nag bu ko ma jàppale ma dimbali ma ba nuppi nag teeru ma tatagal ma ba nit nit ñi nag soppale ma mm-hmm. ba caal ko xoolal ne ko jàkkata bu ma ma toog fii te duma wax buñ dee génn génn sama xaaju kanam <laughs> mun a naa kompolo karama cameraman yi di ñu génne sama xaaju kanam mbaa may wax te kenn du ma gis am na ci dëkk bi di mais umu def fët loolu tubaarkàlla macha allah. mbokk yeeg xar yi kii sama doomu ndey la euh, maa ngi moom Col Crési la. émission ndogu ndaanaan ku ne xam na ne maa ko indi ci réew mi. wallaay dëgg la te incha allah. waaw waaw xam naa ne li américain naan damay def xaaf. waaw waaw waaw dina ànd ak moom. ba ci digg mu insistel foofu. incha allah insistel moom mu eggalil ma ndogu ndaanaan macha allah macha allah xam naa beneen mission bu may defal télé bi. Mm. macha allah maa ngi leen di. jërëjëf Sow delloo njukkal baax di leen wax ne jàpp ci moom dëgg-dëgg mooy jàpp ci wallaay Sow parce que moo ko liggéey ma défendre barki démb ci réseaux sociaux yi taxaw dëggal boppam wax ci man loolu cuune mënu ko laa ba te réew mi toll na foo xam ne boo dee jigéen am na la yàlla may yow macha allah yàlla am na lum la may maanaam supporter euh, supporter sa morom jigéen du yomb mm-hmm. man moom supporter ma sax kam naa <laughs> ngi laa ko puul sax dangaa def jongo ma nag de naan yow la cat mais dafa nekk loo xam ne lu jóge ci xol ci xol rek lay te ànd bu yàgg bi dëgg la li may mm-hmm. wax ci Ibou Bongo suñu ànd dafa yàgg moo ñëwaat ci yow Ibou Bongo day ànd ak man ba nga ne kii mm-hmm. dafa ragal um sa wala wala dal la su ma ko yónnee sa ibu nga day dem parce que lan bu am ci man ak yërmande ndax xam na ne actuellement nii sama frère yeeg sama sœur yi ku nekk yaa ngi am occupation te jabaram yàqu ci dara nag jabaram yàqu ci dara booba dina ma topp ba cinq heures du matin ibu maa ngi lay ñaanal yàlla na sa jàmm amiin yàlla bàyyi koog soxnaam si am nag bu sincère rek dëggu neex na mm-hmm. waaw rouge noir day wane bëgg mm-hmm. xonk amour la mm-hmm. kon man ñi ma ñi ma bëgganteel rek ñoo ñoo ñoo nekk nii Ibou Bongo waaw Modou Bongo tubaarkàlla ñuy am kontaan ak mbégte kii sama ah. kóllëre la sama nit la. Mm-hmm. te bu def maa bëgg see seeti man dëgg baax la. ba pare lu ma lu ma ko wax moom ci ci ci lay ci lay mm-hmm. su ma ko waxee bu defal nii mu def nii du dara mais xam ne ne man tamit dama koy xalaatal xalaat bu rafet yow yàlla na ngay maam ànd day dëggu sincère mu dimbalante di jàppalante tey lu ma fi defal nit it sama ay nit ñoo ci gën a jeet mais dangeen may comprendre di ma bàyyi ma defal nit mm-hmm. yéen ngeen taxaw ñàkk ba beneen te da ngeen di xam ne ne budget bi day jeex mais xam bu dul nit yi buñ fi nekkul man ak yéen neex na ba pare loolu mooy àdduna Modou Bool man dama soxla kóllëre te kii dafa am kóllëre Ibrahima ndeysaan waaw Ibrahima Modou Bool moo la invité nii léegi waaw kañ waa aca Ib Bongo Modou Bool waa Ib Bongo Modou Bool ndeysaan

kooku war nañ ko wax bu baax nga bi ma wooyee ni ma émission bi Modou da ngay dem émission bari na ñu may woo bu ma wooyee dama naa leen xaar leen dama naa leen da ngeen di xaar mooy sama manager fii boo fi njëkkee ñëw sama soxna laa àndal ñu invité ko mu waaw ma dëbb ku ñaan du gërëm ku soxor du gërëm di ñaan du nelaw ca ma nelaw ci réew mi ku ci nekk baye boo def lu baax ummi sa ah. mbaax géey ñaa si kanam loo ko salam salam ngay ñaasi kanam la ko sëlëm sëlëm du daj tëj ci es bi ci es bi rek i bogo ine lay wax waxul la wax looy wax daa naan du moo du boobu maa ko mu jàng waa Ngor yaay yëwen gore yaay démb yaay tay yaay barki démb yaay xëy di ëllëg am nga ndey am nga rakk ay am nga ay famille waaye Ngoy Caali neexu leen waaye eh sama gaay yi ci ginnaaw yéen a dégg daaj yéen dégg daaj kenn du ko dingat ci es bi ngeen di dukkat dañoo tàppe ci teen ñeneen lukkat géwél a amulu baaxul Oumou Sow sa émission bi yëg ne tas na réew mi Oumou Sow yëg ne tas na réew mi Mbaye Thial yëngal réew mi Mbaye yéen saf réew mi Sen TV yéen a yëngal réew mi ee eh, kon kandang kandang secours ne kandang ngeen ne fulow bi man dama ko ceene kaay bi téene rab mbalax i boo ko ngénte xoolal bëgg bongo taxuta mën na bongo bongo yaa ngi di e bëgg bongo taxuta bongo bongo yaa ngi di budu bol bongo ko yëngal mu yëpp sa mbaax kay si kanam lu ko sëlëm sëlëm du deñ sa mbaax kay si kanam lu ko sëlëm sëlëm du deñ sa mbaax kay si kanam lu ko sëlëm sëlëm du deñ sa xol day si kanam lu ko sëlëm sëlëm du deñ sa mbaax mi mi nga jël mooy sama yaay rakkam boo demee ndax sama ma nga parce que nu nga bokk amul baja baja ngéwél yaa nga ndaar wax jaa nga ndaar jëringoo nekk maa la besam ba ma ca sii ngi ndaar ñooy doomi ngéwél xoolal alsan bay ay gaay ka maala ka ka ka mu yë maala baa kës passé ma ci man nga ne la ma gay alsaan ci man alsaan bay lu ma lay man lu ma koy wax alsaan bay jëlal lu ma lay alsaan bay def kat ga def kat ga police du la du dugg kaso def kan sa yaay ya daan dimbali jéeg yi nan la bàyyi xel. mu alsaan nan ko bàyyi xel. sa yaay ya daan dimbali jéeg yi nan la bàyyi xel. waaye yéen kuy géwal. alsaan bay géwal. kuy géwal. alsaan bay géwal. alsaan bay yaa man lu baax di ko def tey ma xam lu baax di ko wax. alsaan yaa man lu baax di ko def ma am sama lu baax di ko wax. yaa xam lu baax di ko def tey ma xam lu baax di ko def. waaye yow. déedéet aayul lii aay na. xam nga aayul. aayul. déedéet aayul. aay na. déedéet aayul. xoolal alsaan na nga ma wuyu na nga ma wuyu na nga ma wuyu. wuyul alsaan na nga ma wuyu na nga ma wuyu na nga ma wuyu. alsaan wuyul. kon moo du bool moo ti waawa maa lay waayal. dina la wuyu dina la wuyu dina la wuyu yow moo du bool borom jaawan dina la wuyu. boo amul bañ a bañ a. déedéet. xolub amul ki ñaan. déedéet. xolub amul soxor. déedéet. xolub géwal xamul lu ñaaw. déedéet. bëti géwal du xool lu ñaaw. déedéet. noppi géwal du dégg lu ñaaw. déedéet. bakkanu géwal du nooy lu ñaaw. déedéet. waaye gémmuñu géwal wawuroo wax lu ñaaw. déedéet. alsan bay jikkoo di nit. bu gën jikkoo la di ay waa jikkoo di nit ku gën jikkoo la gën di nit nit nitee ko gën te nit nga Alsaan Mbaye du yow man du ñu fi nekk sa yaay liggéey nii ne affaire bi day ci la Alsaan nit nitee dafa amul dara lu saabu mun tafoo përgël mun ci dara ñoo bokk meen maam tere gi benn la Moodu Bool 77 453 06 55 numéro Modou Mbol boo ko woowee jot ko Tivaouane dëkkum sëñ Mansour 77 ay waay ah 453 06 55 man Modou Mbol man maa ko moom Sëri Anta Mbay Sëri bëri bi tey ko moom waaw du ko jël ngoy ngoy seede ma Assane bàyyi li ma wax lu ci nit man li ma wax lu ci nit xam ku baax Assane Cuba. Alzande. Maria si may si diine may si di gama. waay. Adja Jagaay sa yaay. ak a muñ toog kenn wariwu ko kenn seetlu ko kenn xamalu ko lu ñaaw. ay waay. Adja kii la ci émission bi kenn bëggul mu jeex. mu saw. waaye waa Régé ngi réclamé naan Modou boole ngi yëngal fi mu toll nii waaye jeex na. ma ne leen xaar leen tàggatoo mu jël bool yi taxaw fi. dikk bi jàkkaarloo askan wi xam ne ne Modou Bool dikk na sa TV. waaw li mu wax yow dikkantu woo da dikk. waaw waaw. li mu wax ci alaaji ma ñëw keneen ku mel ni man dëkk li mu wax ci alaaji Alassane Mbaye ko maane Mbaye waa ala yow daf la laal tubaarkàlla balaa alsaana tëdd ko dégg non laal na la ndax mu ngi fii ci téléphone yi tubaarkàlla te dina ko dégg moom na ndax tubaarkàlla macha allah da ngay nawle ah, taxaw fii wax ak moom ni ko man Modou Mbool bu Tiwaawan tubaarkàlla toj na dëkk maa la waxal lii alaaji Alassane ba pare ni ko wuyu ma nag ah, waaw loolu donc kon tubaarkàlla macha allah sa sa sa sa sa loolu nga wax alsaan dina ko dégg incha allah ndax tubaarkàlla umu saw mii day jarbaatam mu yar ko fu mu toll di ko wax lu baax tubaarkàlla ñu ngi fa war a ànd moodu bool umu hmm. ah sargal jigéen garaaw na tey de ah garaaw na tey nag moom dafa alaa daaw me macha allah naa ne mbokku téléspectateurs yi suñu sañoon du jeex du ma sa jeex waaye Modou Boll dina ñëw ñu yendoog moom ba mu neex hmm. def moom live bu dëgër a waaw incha allah bu dàq bii nag ay mosaleeg ñamaleeg yéen rek nuyoo ak ci émission bu mag bi ci télé hmm. bi di seen ji yaa Hadja sa mot mhm. fin. bu dul fin kenn bu dul fin. Eh aywa lii fin ba mu kutubaarkàlla. <laughs> xanaa sargalati la rek. di la ñaanal gudd fan ak wér. ak jàmm ak salaam borom xolu or bi borom xolu jamaa bi. yow danga ma mën a wax lu baax rek. Mm-hmm. te naan maa sincère waaye yow mi yaa sincère. waaye lépp yow la. Ah, xam naa ne mbubb mi Alaaji Alassane Mbaye la. waaye xam naa ne verre yi daal sama rakk ji yow la saw sa boor la waaw dangaa dangaa dem rek ci reen Elisabeth <laughs> man ma daal di def nii rek tubaarkàlla ah, ne ci wet gi di la wéttali sama rakk ji yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér dafa la jàmm bàyyi laak may mën a nduur fay bàyyi kook man bàyyi ñook aadama ah, suñu càmm ji Moodu Diouf Papis Mbay tubaarkàlla Pape Maguette macha allah Semou macha mm-hmm. allah euh, nu mu tuddee Mouhamed mi ngi régi mi ngi régi macha allah Penda ñoom ñëpp macha allah waaw wallaay wallaay ak Mamadou ñoom ñëpp macha allah umu di la ñaanal gudd fan ak wér di wax nag Ibou Bongo mi yàlla nañ yàlla bàyyi ak moom moom day suñu rakk maa ngi yow dañoo yàgg ak moom mm-hmm. umu Modou euh, li ñu gën a neex ci moom mm-hmm. moom du daw du daay Ibou Bongo lu ñu ko sant mu defal ñu ko xeebalu laa defal dara di ñaanal yàlla nag téléspectateurs yi seetaan 7TV Oumou Show samedi 16h léegi dimanche 17h la. waaw dañ koy sax teg samedi 17h ah 17h ah. waaw kon samedi 17h macha allah ngeen xaar Oumou Show aji ngoy caali ak Oumou saw teg seen i bañ yu tàng teg seen ay neem teg seen yu baax macha allah tabarakallah di leen wax ne ah. tàggoo bu dul tàggoo yàlla nañu yàlla may feetu jàmm nag. bonne fête de la femme macha allah 8 mars. yàlla may ñu ñu fekk ko déwén ak wér gudd fan yàlla bàyyi ñu fi. tabarkalla macha allah kontaan nañ Modou Bol. jërë ngeen jëf ndeysaan ndeysaan ndeysaan mhm. dëgg la Modou nit ku baax la. Mm-hmm. Ah, waaw ah, waaw. waaw yaa rabbi waaw. <laughs> papa way na lu neex macha allah yàlla na. baat ah, bi way na lu neex moom. nga doon mag mu am ñam. wallaay <laughs> wallaay. daf la yéene de. ndeysaan. amiin yaa ko yor ndeysaan amiin yaa la waaw waaw waaw alaaji Papa Diop waaw waxal ca kaw Papa Diop mu baax mi ah Fatou Seck yaayam Adja Fatou Seck mu baax mi léegi nag ak bëgg yaayam Maimouna Ndour Faye mooy dëgg de. Ndour Faye Maimouna na xamal na. ah waaw ki ko mën ci def. waaw ak lu ko mën. MNF. Maimouna li nga nu defal du ko wax yaa ko def dinaa la ko wax. yaa ko def dinaa la ko wax. yaa ko def dinaa la ko wax. Maimouna Ndour. Modou boole yi si nekk. Maimouna Ndour. Maimouna ay Mayo. Maymuna jom ji ci yow ci sa yaay nga ko sa weenu ndey wi ko ci napp am ngor daa mën a muñ Maymuna Ndour koyoy may moo naa bu ma fàtte Modou Bol ñëw naa ànd ak doomam ànd ak turu bon ñëw may moo na may moo na bul ma mii ba fàtte ma sax may moo na koy way bul ma miin may moo na sa télé bi yàlla na ful di ful di ful doone ci réew mi dara du ko dindi xamul lu bon yaayam xamul lu bon Maymuna juddu fi nga juddu màgge ni nga màggee jëf ni nga jëfee duma la wutal noonu xam nga kuy sa noon ki bëgg a mel ni yow melu ni koo koy doon sa noon bokku di ko tool taxul yem dàgga nga niil yaay maa la man kenn du ko wax ku ne xam nga kala man dam ko dul yaa Maymuna Ndour borom télé bi télé bi Maymuna borom télé bi Maymuna borom télé bi Maymuna borom Maymuna borom télé bi Maymuna borom télé bi Maymuna borom télé bi sant Adama chéri Nene borom États-Unis madame Diallo yow lépp yow la sama waaj di sant waa kër gi animateur animatrice di ñaanal jàmm waaye ngoo caali Modou Bool mii dama koy ñaanal rek fan ak wér gu yaram ñaanal Mouhamed mi ci régie Mouhamed mi nga xam ne naa ko loo laalul baaxul Mouhamed waaye Pape ñun ak yow lii du jeex lii du jeex lii du jeex Michel moom nee na man rek lay topp waaye njaago Serigne Fall bi man yow rek lay topp di nag Chérif borom Feeling Dakar sama waa ji kenn du li ma waxal Ibou Bongo léegi laa lay waxal Chérif gërëm naa la ngoy gërëm na la sama waa ji yàlla na maam eh, Michel Michel miisa sa mbaax gi ci yow ba tey dañu nee leen miisa misal daraam du ma bett ndax jëfi ndayam dafa man misal daraam du la bett ndax jëfi ndayam dafa man misal daraam du ma bett ndax jëfi ndayam dafa man woy misal daraam du la bett ndax jëfi ndayam Pape yaa tax ñu naan di wax lu baax Pape nga réglé say micro kuddoo say micro man lu baax def lu baax ànd ak baax di def lu baax waaw Pape école boo dem am na directeur ci lycée yi ci réew mi yaay seen directeur ku bañ a ko nangul yëpp yaay seen directeur Seydina Mouhamad Seydina Mouhamad chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10